ñoom ñaar kan laa ci war a faral. waaw loolu ma metti am na koy njëkk a faral ak koo xam ne après nga koy faral mm. loolu laa bëgg xam nga wax ma kii laa gën a faral après kii moo ci tegu ma xam ni boo am na priorité quoi xool bi am na ko jël tuuti un peu de 60 pour cent keneen jël 40 pour cent. man daal. Mm. ku daan daal moom du ko seetaan sax nag. waaw man du ma ko seetaanee. Ah. bu giri dooree moo du mun naa mer bu Modou dooree Gris Bordeaux mun naa mer. ah dinañ dóorante di dinañ waaye daal li may wax mooy. waaw mooy daal moom. Mm. yal na waaw yal na kenn daan daal giri wala modloo daal yal na kenn daan. yow waxaguloo ma ba léegi koo faral man li ma soxla du yal na kenn daan. waaw ko waaw. loolu daal ki ma ci faral daal ci ñoom ñaar. waaw. man daal ki ma ci faral ci ñoom ñaar daal. waaw mooy. mooy daal Gris Bordeaux Modou Lo daal. Gris Bordeaux Modou Lo daal man ñoom ñaar ñëpp daal laa pare Gris Bordeaux Modou Lo. waaw waaw léegi d' accord waaw d' accord ba géej gi fer waaw Gris Bordeaux léegi ñoo léegi lancé leen benn message boo xam ni noo violence parce que làmb bi mu ngi commencé yàqu waaw ah. mi ngi commencé yàqu loolu ma ngi ko doon wax fili euh, comme mm-hmm. jëkkëram dafa dugg ci làmb bi. waaw loolu it war nañ cee wax ndax mm-hmm. bi baax. Mm-hmm. violence bi moom. parce que sànnante xeer bi gis ngi nañu ñoom sax ni mm, combat yi léegi cent millions la yem bu ñu gënee indi fii violence waaw dix la jëm maa ngi coupé merci merci léegi wax ko si jëkkër ko moom daa bëgg a dugg ci làmb ji moom moolu ko wala yow yaa yow yaa dugg ci làmb ji man maa ngi si làmb ji ñun baax na ah, ah c'est ah, comme yow de moo la moo la tane de moo la tane de waxal ak sa daal yuy tooy <laughs> sa yi nga sol eh, avait Sili Sili plus Ndele c'est mon amour quoi c'est le combat du ciel c'est le dimanche bi no WWR dañu ay quoi FF nga naan R bon waaw allo euh, euh, bonjour euh, Albé Kayré la suñu bi naka naka nga def ñoo ngi fi rek alhamdulilah barkeel yow gisuloo gisuloo sama sama kalpe sa kalpe sama pochette yi pochette yi sama qualité gisulu boobu. <laughs> man gisuma sa calpe de sëñ bi man fii la xëy si man xaw ma la sax booy gis sa calpe. Dakar yi. Hmm? lan la. Euh, ja. lan la. encore yow gisul calpe bi. sëñ bi man de. nekk mu ne xaw ma la sax war na yàlla. ñëw naa si si Dakar bi. waaw bari ni ni nga naatalee Dakar ja. waaw dugg na oto super yi. waaw nit mi ngi togg sa wet yi. waaw man wàcc naa la. cappo si gisulu benn qualité ci man waaw ah, yow dañ dee di wax loolu mënul nekk qualité nekk maa bi ma dugg si si si qualité bi waaw ma ni dama wax ni bi ma dugg si calpe bi boobu si super bi mi ngi nekk ci sama poche. yaa ngi juum de. bi ma wàccee ma làmb si sama si sama si sama ma jël sama poche ma làmb sama loxo gisuma foofu dara maa xam ne calpe bi dem na. moo tax ma laaj rek. maanaam bi ngay dugg ci si sa calpe loolu nga bëgg a wax parce que da ngaa làmbeer wax ji calpe bi li ci nekk xam naa moo tax ñu toog sa wet naan ñu ngi lay déglu wari loo ko nangu defal eh, benn place nga leen et puis dañuy taxaw mën nañ la paasal sax. Mhm. sol gar am bu comme fili. nice fekk ñu ngi lay def deux doigts wala nga gis koo xam ni dafa gaañu si loxo bu gaañoo si attention yaa ngi may déglu ah nga jël koo xam ni dafa gaañu si loxo muy takk loxo bii bande di ñëw di yërëmte lu yërëm bul ko yërëmte. yóbbu sa dépasse sa kër déedwaale lay def nga ñàkk sa xaalis quoi caméraman bi sax loolu moo nekkoon métier mais dañ ko conseillé bo ba nga xam ne léegi bàyyi na ko muy mbii waay la dëkk xam nga moom. booy ah, daal la quoi ah waaw mani sa tas yi ak sa ay ak si li ngay si yëpp si boo kalpe bi da nga nekk sa kar da ngeen dégg naa si biir ah. sa passe nekk na nekk na si bari na commencé liggéey taxaar fii war na jënd socc da nga jaay ko. Hmm. yëpp boobu bi yàlla yàlla mu dee. <laughs> waaw amin waay sama ak waaw waaw waaw baaxul coupé tale merci coupé waaw hmm. merci métti nag non c'est honteux quoi parce que te li ci gën a bu ñu jëlee sa xaalis après dañuy jël carte d'identité yi. puis yooyu ñu sànni ko nga war a defaat tuuti nu retournement de la situation pour am loolu ko c'est sûr bon. Euh, fili plus euh, Adja non Adja Adja. problème quoi. def ci ndeela waaw def naa ci ndeela <laughs> ndeela. quoi ndeela Aliou. mu mu ma musli. musli musli Kër Masar. musli poche soo ànd def dama la namoon rek di la woo. ah waaw waay mu musli. Ah. musli katu aas. wala wala. katu aas. Eh, ci yooyu. Eh, eh, man man man man ci yooyu. waaw yaa ci ba bëgg saar du loolu la ñuy lay wax musli poosekatu ans loolu doxul nag parce que boo amee jëkkër rek bu la xam nga rek quoi ay vers onze heures mun na découragé quoi ma ma ne la ma la man naturel laa yor naturel man ma man naturel laa yor man ci ñi monté ñi ak di di monté ay ween man defuma loolu man naturel laa yore waaw yàlla sunu borom moo moo ma ko sàkkal ah. man naturel laa yore man naturel ma ba sëñ Tuubaa man naturel laa yore waaye bani jëriñ waat man xam naa yow de waxal ak seen toggkat boobu moo moo moo monté ans ak xawma Adja la xawma déedéet ñooy monté ans ñooñu fii naturel la ya ñoo ñooy monté ans waaw <laughs> waaw. bu leen di problème xam nga monté aasi da ngay waaru quoi parce que nit ki bu la takkee xool bi tout ça là. waaw mu naaj après nga monté aasi. sa jabar dàq sa mu monté aasi. kan noo def ba xam xam monté kan ngay wax jabar noo def ba xam ma waaye xool du ma waaye waa jeex na mani. Eh, eh, eh. waa jeex na. mani. mani lan. yow def ba. xam montage. mu ne kan kenn kan moo fi montage. Ndéla la wax Ndéla kon xaaral ma ñëw vérifier ba xam. looy vérifier. Ndéla tey montage eh kaay fii. ah yoro toogal. mais yoro yow franchement eh. ana góor ak dem naan da ngay xool moo doy xool. damay vérifier. nee na sa jabar dafay monter demal nga xool boobu. ah loolu man wóoruma de moom moo la tuumaal xam nga yow yaa ngi doon kon kii wax na ne yow da ngay monter à ka baddu aso ka baddu du montage. ah yow tamit. ah. ne ko man dama am lépp tout naturel. arme bi war a ñëw foofu mu ëpp. suñu eh, kay toog fii. moom nee na naa ñëw yow itam fili dugg ci yooyu. mais la quoi. man man mën naa la ko wax naturel la. non naturel la non yow war yow dee dara quoi léegi pour la naturel bi ah. na wax rek. léegi looy wax looy def ni <laughs> waxal. yow bàyyi kii. ah. pour que na wax <laughs> Eh, eh, man à passage doo ma ci boole. à passage. man yow on passe à autre chose Yoro le temps ngay nekk fii di xaw ma looy def nii xaw ma da ngay da ngay charmer je ne comprends pas malheureusement rafetoo donc. Euh, ah, non merci. non tu n'es pas beau.